département bu Mbour daldi ñàkk lu bari ci ay doomam gannaaw ba ñu jëlee gaal gi di dem di mbëkki loolee waajur yu bari di ko naqarlu metti na lool suñu doom yëpp dee nañu si géej metti na lool géej gi amatul jën jën bi jarul ñun daal metti na suñu. waaw léegi fi mu moom jamono moo toll foo xam ne moo metti te liggéey bu ñu liggéey dafa amatul avantage xale yi boo ba léegi feebar ba léegi géeg doxatul xale gisul xale yaakaaroon am rek pour dem liggéey yi liggéey bi de ni mu neexoon bu jëkkoon léegi neexetu ko parce que ko mooy da nga daan dem fu jage am léegi da ngay dem fu sore doo am dara xale yi boo gisee nuy mbëkki sax mooy géej gi moo amatul dara waaye tamit daal dinañuy dellu si ci li waral yi la ndaw di jël gaal yi di dem ci réew tubaab ya ba tey mangoog di yàq géej boo demee ba ñëw tamit zéro sa jën fii laa taajo du jar du baar xale yi dem nañ si mbëkk ñëpp dee nañ ñëpp dee nañ yal na si def jàmm daal ak salaam am mboolum jullit. léegi bateau de pêche yi nga xam ne ñooy napp si géej gi daanaka mool yi mënatuñu jàpp jën ndax ñoom géej yëpp daanaka jaay nañ ko daan la yàqal du du dikk dara yàq sa matériel léegi essenciers yi nga daan dem di lekk essence sax ñoom lebleetuñu essence kenn mënatu la lebal benn litre essence boo amee ñaari maare digal benn fare dootoo amati fare géej gi daal dëgg-dëgg metti na lool xale xale yi daal ñun li ñu fi fekkoon ak li xale yi fekki da bokkunu li am moom du kenn sunu borom la te xale yi dana am yaakaar pour dem liggéey ndax métti métti jamono bi la waaw ndax métti métti jamono suñu borom moom moo indi li xale yi euh, maanaam duggewuñu ka dara pour liggéey pour am pour maintenir seen waajur yi ndax fi mu toll dafa metti kenn ñëpp xam na Sénégal fi mu toll dafa métti. leen daal bu jox dara mais géej gi nañu ko aaral ba nga xamante ni. boo si demee di nga am soo wërsëg mool bëggul koom may li nga dimbalee mooy jëlam bu ñëwee na am ko ma koy jaay te dem géej bi yomb si moom man daal noonu laa koy gis. état bi na nañ ñoo ngi koy ñaan mu dimbali xale yi nekk foofu nu mën leen porté mu téye leen mu toog foofu nu mën liggéey ndax bu leen delloo bu leen indiwaatee fii tam coono rek la si ñun métti métti moo tax dem ñi dee dee waaye ña fa nekk na ne na leen fexe nu jàppale leen nu maanaam du liggéey man daal loolu am si lu